l'actuel régime ci initiative bi ñu jël parce que mm-hmm. ñun moom euh, suñu wax mooy lànk nañ lépp lu dul yoon ak lu dul dëgg ak fu mu mënti jógee mm-hmm. te régime bi wax dëgg yàlla ñun dañoo yàgg ànd ak ñoom day xeex di gagné ay combat kooku nag bu faloo da ngay yàkkamti mu am ndam parce que ndamam sa ndam la mais it ci wet boo gisee naka sudul noonu ñu def ko tamit da ngay bokk ci ñu njëkk taxaw wax ko mm-hmm. rafetlu nañu woote bi parce que réew munta dox réew munta am jàmm fi ak justice am équilibré askan wi jàpp ñu ni justice bi seen justice la te justice bi demoon na baa à un moment donné euh, sénégalais yi. gisatuñ ci seen bopp parce que làq doom dóor doom bi dafa bari woon. parce que baralon bi dafa bari woon. Mhm. surtout da ngay gis ku toog këram euh, am ku ko jege am problème mu woote. parce que mhm. xam na ministre diw. wala xam na procureur diw wala xam na diw diw moomu lijjantil ko ko justice bi à un moment donné justice lijjanti la woon. Mhm. chaque jour mooy joxe le cas de Ahmed Suzanne Camara ak Fadilou Keita Ahmed Suzanne Camara la mu waxoon a yées la Fadilou Keita waxoon. ñu ne ñu ne nous Fadilou Keita te jàpp lu ne wax ko ci ñun lu ne xeex nañ ko ci ñun. ba pare bàyyi Ahmed Suzanne Camara doxi soxlaam gis nga la xewoon ci Sénégal ci tàng ci bañante ci eenante justice dafa nekkoon ci loo xamante ni moom moo ko mm-hmm. indi woon xama nit des fois mu joxe bakkanam ci fukki dërëm du fukki dërëm yi mais ni ñu ko bëgg a nangoo ci moom la loolu moom moo fi amoon parce que bu dee da nga gis nit mu def naka sulul noonu kenn jàpp ko ndax parti ba mu bokk wala ndax dafa ànd ak borom doole nga gis keneen sénégalais lambda bi nga xamante ni moom bokkul fenn def lu lu yées loolu ñu jàpp ko tëj loolu bu yàggee day révolteloo mm-hmm. askan gis nga dëkk yi fi tas yépp justice moo leen tas justice moo doon loo xamante ni ci askan bu ci amul askan ba pour mu mën a am jàmm dafay mm-hmm. jafe mm-hmm. loolu nag moo tax ñuy mm-hmm. rafetlu initiative bi nga xamante ni le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui est notre frère initié na ko Euh, wax dëgg yàlla xam naa nag le collectif Palais yàgg na ko wóolu mais bii moom dafaa yaakaar ne xam naa peut-être <laughs> si position tàgg yi jël taay bii moom xam naa je pense que peut-être euh, omission la ñu ngi di wax sax mais man dama leen man jàpp naa ne comme initiative bu rafet la nañ ko accompagner mhm. que nga nekk ci wala nga bañ ci nekk nañ ñaan yàlla mu réussir parce que réussir am moom mooy réussir Sénégal mhm, ñun mhm. foofu lañ toll mais leneen lu ci topp mënuma Diomaye Diakhar ak parteem ak ñi mu àndaloon à la veille des élections ak aar suñu élection ak ñun ñi ko taxawaloon mhm. euh, élection yi euh, pour xeex élection yi période boobu dañ ko waxoon que ni képp ko ci falu bëggoon nañ nga leeralal ñu mbir parce que dafa am juróom-ñetti fukki xale yu seen bakkan wadd mhm, te xamuñu fu mu féete ba tey mhm. ñu revenir ci loi d'amnistie bi te gëmuñu ni ñun gëmuñu ni ñun benn rek bu bakkanam faatoo dañ ko war a leeral mais juróom-ñetti fukki xale waxuñu duñ ko waxuñu leeraluñ ko mais dañ ne mi ngi bëgg a yàq te bëgg nañ ñu leeral loolu. parce que ak l'affaire Fulbert Sambou Didier Badji. falaa doon jëm si falaa doon jëm yooyu dafa doon yoo xam bu ñu bàyyee mu jàll mënuñoo def ci justice lu sax sénégalais. Mhm. parce que dafa am yu fi jaar ay magasin tàkk ñu taal ay këru nit ay sénégalais ay sénégalais lomponc ay sénégalais dee ci. Mhm. quatre-vingt juróom-ñetti fukki xale dee ci. et loolu. bus bi ñu taaloon. loolu c'était une première au Sénégal et récemment gis naa nit ku génn taxaw ne moom bokk na ci ñi doon jënd cocktail molotov yi. Mhm. muy Tunkara. Euh, bu bu bi nekk États-Unis man sax je salue son son courage ah. que mu génn wax ko nii publiquement parce que am na ñoo xamante ne ñu ngi def lu yées loolu ba pare nekk ci suuf ne tekk tekkaaral. Mhm. kon loolu man je pense que actuel régime bi booba moo doon opposé wu. Mhm. régime bi fi jógee ñii toog tey nekk nekk nekk ci régime bi booba ñoo doon opposé wu. ñi fi ñi fi jóge ñoom ñoo nekkoon au pouvoir. Mhm. les ñoom ñaar nag am na ku ci rey xale yi. amee ah, si. kii da doon woote génn leen ñu xeex kii di répressionné. Mhm. même police bee ngi fi même gendarme bee ngi fi même ñi doon woote ñi ngi fi. mais y a eu y a eu parce que am na xale yoo xam ne dañu leen a boom ministre bi génn ne paaka lañ leen jam. léegi autopsie bi ne bal foofu laa doon jëm et foofu laa doon interpréter le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. a mhm. travers le collectif Ñoo Lank mooy collectif bi nga xamante ni moo taxaw woon Ousmane Sonko. en 2021 Ousmane Sonko recevoir ko këram guddi. Mhm. ñu waxtaan ak ndem si yàlla si professeur Malick Ndiaye. ndeysaan biir kër Ousmane Sonko fii si de kër góor. Mhm. ñu dem toog ak moom les photos sont là les vidéos waxtaan ne kii dañ ko bëgg a teg naka sudul noonu taxaw ci wetam xeex xeexaluñu woon Ousmane Sonko de mais dañ doon xeexal ay fee yoo xamante ni sénégalais bu mënoon ci dal ñu taxaw sa wet mm-hmm, mm-hmm. parce que collectif ñoo lànk bokkul parti te transcendé na parti collectif ñoo lànk boobu la Ousmane Sonko jóge këram biñ ko bàyyee set si ko ñu def en direct les vidéos mu ne man collectif ñoo lànk laa bokk parce que li muy xeex dama ci gis soo bopp le vidéos sont là. Mm-hmm. ñu doon ay frères di xeex ba taxawalandoo le mouvement m 2 man mm-hmm. je fais partie des personnes yi taxawal m 2 ak la ministre Cheikh Tidiane Dièye bi nekk tey ministre de mm-hmm. l'hydraulique que je que félicite. on le ci combat yi ah, nekk ministre tey man dama ciy fier. parce que ñun ñoo daan. ak mener le combat ensemble ñoo ko ñoo ko mëneendoo ay at avant sax ñoo lànk aar suñu aar suñu. élection suñu suñu moomeel. donc je pense que man. tey bu ñu yegsee ba fii du ma gis lu dul lu réussir loo ñii parce que ay frère lañ ay xarit lañ yu toog mais bëgguma ñu passé à côté. Mhm. passé à côté nag ñi nga xamante dañoo toogoon di gis di wax kenn mënu leen a tee wax xam nga l'affaire Fulbert Sambou ak Didier Badji. Mhm. lu ñu war a gën a leeral que loolu amul. parce que lu dangereux la ci république. ak la mort du gars en prison damay fàttali mu tudd. Mankabou Mankabou loolu aussi lu doy waar la hmm. dama ko doon bind léegi ko woote ci Sénégal actuellement. fii ak promesse yee ñu defoon avant élection yi ñun ñu toog nii waxuñu ni amul de. Mhm. waxuñu ni duñ ko def de mais dañoo gëm ni lépp lu ñuy woote ci justice looloo ci war a jiitu. juróom-ñetti sénégalais juróom-ñetti xale des magasin saccagés ay biis yu ñu taal ay nit ñu dee ay sénégalais yoo xamante ne dañoo patt laago tey kenn waru ko woon fàttali le président Bassirou Diomaye mm. Diakhar xay euh, Faye parce que quatre-vingts sénégalais yooyu toog toog seeni famille ñi toog di déglu mm-hmm. ba nga xam deretu promettre nañ leen indemnisation mais ñoo rey seeni waaye loolu sax dafa am lu ci solo xoolal dëkk yi tàkk yépp lu mel ni day am ñu bàyyi ko buñ ko bàyyee keneen jóg def pire rey lu ëpp loolu parce que mm. da nga am du mujju fenn donc je pense que pour defar Sénégal je pense que pour Sénégal am jàmm. Mhm. et je pense que pour ñun ñëpp ñu ànd nekk ci jàmm yaakaar naa ne question yu mel noonu question ëpp ko solo. merci beaucoup leen féliciter. ci lii ñu woote te di leen ñaan réussite totale parce que bu réussir Sénégal moom.